Diomaye eh, Omar Sow moo ko xëyee eh, tey ne Amadou Ba daal du teewee ndaje boobu nga xamante ne eh, moom la ñuy amal fële ci CICAD Pape Ousmane Baye nag ndax mën naa tere aram xew mi am <laughs> wala ni mu war a amee <laughs> mu jaare noonu yoon la ñuy xaaj ay àndaat <laughs> nag ñu yegg ci est-ce que sax amoon na solo sax invité les politiques Ousmane maa ngi ree parce que. <laughs> di nga reetaan kay. <laughs> Oh, xamoon naa na ko def pour ma titi mais j'ai envie de rendre la réponse bi nga xamante ne le président Macky Sall serviroon na Ah, neex naqari day am yoo xam nga nit ñaa ngi jooy ndax boo rombee gis ay gis gis nga gendarme yi jalone <laughs> donc euh, euh, jotaay bi jotaay bi dina am mais mais je pense que euh, encore une fois bu ñu delluwaatee ci ci waxu euh, président Bassirou Diomaye hmm. ba muy njëkk discours am ca ca dafa wax ne dina dinañu amal ay waxtaan ci wàllu yoon ngir réformer moderniser mais loolu bu ñu koy def dinañ tàllal loxo ñëpp ñëpp waxtaanee ko donc mun naa dégg ci loolu ne politique yi duñu leen bàyyi gannaaw Passemane bu ñu leen woowul woon sax dinañ ne woowuñu ma. xam nga moom laa lay yëgal la rek xew mi xam nga sa waa kër bu ñu la yëgalee xew mën ngaa dem mënoo dem Passemane yëgal nañ la. c'est-à-dire impression bi may am mooy mooy dafa mel comme politique yi ñoom. maanaam bu nee justice rek ñoom ñoo ko aaki moo quoi cest à seen mbir bopp la ñoom politique yi euh, lu ci xew bu ñu leen woowul daanaka mbir yi du safe wala boog réforme yi ñu ciy xaar ci am pourquoi à chaque fois. suñuy wax justice rek c'est-à-dire ñoom la ñuy mettre au devant de la scène ñoom politique yi. politique yi ñooy saltel justice politique yi ñooy saltel justice justice bi Pape Ousmane ñii ñëpp dañuy dem tribunal. di jëflante ak ñoom. magistrat yaa ngi liggéey avocat yaa ngi liggéey. Mhm. ñeneen ña fa nekk personnel beeg greffier ñin ñaa ngi liggéey c'est-à-dire aujourd'hui yow soo xëyee ñaata juge ñooy def de telle sorte que. ay dossier bañ a yegg ci ay audience naka la ñuy def pour mu am ay conciliation enn juge ñu ngi koy def ñuy rang seen bureau yi te kenn yëgu ko ci sutura nga jaabante jaabante jaabante man à un moment man personnellement sama exemple laay joxe damaa jaabante ba benn moment damaa ñëw ne ko madame le juge macha allah yow loo def man amul lu ma la wax parce que j'ai vu euh, comment elle s'est impliquée comment elle a fait en sorte que wax jii bu mu yegg audience donc bu man sama cas ak ñeneen ak ñeneen donc foofu laay waxee ne justice moo ngi def liggéeyam les politiques nag ngay gis ñu nekk à côté ñoom souvent lu leen laal mooy indi saa su nekk ñuy am xel ñaar ci justice na muy doxee mm. te te te pour faire très simple dañoo am ay ñoo xam ne dañ leen fal muy équipe bu bees bi fi ne dafa am lu ñu diggee ne moom la ñuy def ci wàllu yoon daañu euh, fexe président bu mu nekkati ci bopp conseil supérieur de la de la magistrature mhm. euh, dinañu def de telle sorte que euh, parquet bi ni ko ministère de la justice poñe mu nekk loo xamante ne tamit du doon jafe-jafe daañu fexe tamit carrière u magistrat yi ah, mu bañ a tënku rek ci li nga xamante ne nii mooy mooy décision boo xamante ne nii ñi falu rek ñoo ko ñoo ko yor donc yooyu noonu mhm. ak yeneen yoo xamante ne saa su nekk dañu koy dégg ñu koy wax donc loo xam ne waxtaanee nañ ko fa ba pare quelque part dama ree sànq bi euh, mi di wax le cas de d'IMF e, muy Ismaïla Madior Fall nee du mën a dem waaw Ismaïla Madior Fall euh, il a décliné de façon très courtoise <laughs> demul parce que nee na am na euh, rapport boo xam ni commission bu ñu tegoon pour modernisation de la justice mm-hmm. defoon nañ ko en 2018 2018 boobu noonu professeur euh, Jacob Ndiaye suma juum moo jiite woon waxtaane mm-hmm. te loolu noonu mu ngi fi tege mm-hmm. donc kooku jàpp na la mu war a wax ma ngi ca këyit yooyu ñaata waxtaan lañ fi def di wax ne dañoo bii mooy quatrième dialogue national même bu dee dañ koo jagleel rek euh, wàllu euh, justice bi mm-hmm. mais ci ci ci waxtaan mm-hmm. li ñu fi war a euh, def ci justice bi yaakaar naa ni ñi fi nekk ci ñi nga xamante ne ñoo ko matee am xam-xam bi ci wàll boobu def nañ ko man je ne pense pas jeune je ne je ne dis pas que ils leur mot à dire mais je pense pas que liy defar justice bi mm. ñii ñoo koy wax les politiques parce que politique yi quelque part li leen di arrangé rek la ñuy la ñuy def hmm. mais les magistrats les les les les autres agents euh, yi nga xam ne ñoo nekk ci ci euh, appareil judiciaire bi ñooñee xam nañu seeni mattu lal hmm. bu ñu toogee waxtaan doog ciy boole nag ñi nga xamante ne ni mooy ñi war a jël décision ñu doogay mën a am lu lu lu lu lu ñoŋ wala loo xamante ni dina am njëriñ mais bu dee waxtaan boo xam ni dañ ko dañ koo yaatal Nabou ñëw daan ne man lii moo ma <laughs> intéressé mhm. Mhm. mami ne euh, lii moom a intéressé euh, Ngoné wax même chose euh, waxtaan bi day yaatu et ça ça vraiment tirer en longueur mhm. comme li may wax rek un dialogue ça nous nit ñu xam ko ñu ñàkk ko xam nit ñi dañ leen di déplacer dañ leen di invité dañu defar de la documentation dañoo defar salle daf ñu coûter courant daf ñu coûter xaalis c'est énormément de charges et les gens qui vont là-bas vont manger sur place nit ñi xam ne c'est pas donc c'est un coût boo xamante ne ci poosu sénégalais bi lay jóge mhm. donc bu amee ay waxtaan yu fi nekk ba pare mhm. nañ ko yër dépoussiérer li fi ne ñu xool li ci baax ñu ñu ñu mën ko jëfee li li li baaxul ñu xool naka lañ koy defee mhm. mais man personnellement j'ai pas de leçon à donner à la justice mm. en tant que citoyenne nag damay ne lii la ñu bëggatul gis ci justice justice boo xamante ne nii euh, na mu na mu def Karim wàdd justice bi nga xam ne euh, na mu def Bassirou Diomaye fay justice bi nga xam ni na mu def Ousmane Sonko justice bi nga xam ni euh, na mu def Idrissa Seck justice bi nga xam ni na mu def Barthélemy Diaz pourquoi je cite ces gens Khalifa Sall aussi mhm. c'est des gens yoo xamante ne à un moment donné ils ont été confrontés à la justice ñu yëkkati dossier teg mais bu ci mel ni Barth par exemple sa chaque fois kii y a chose boo xamante ne mu war na ko def ci wàllu liggéey wala dara ñu yëkkatiwaat dossier mel ni genre épée de Damoclès bu ñu la ciimal pour wax ne la ah lii de mu fii nga bañ ko fàtte genre xeetu menace yooyu assez déguisé yi nga xam ne mhm. moom la ñuy teg pour sonal ay ay kilifa ci wàllu politique la ñu war a jël tegee nële ñun lan lañu bëgg bu ñu demee di wuti casier judiciaire buñ ñu wax util extrait de naissance parce que mhm. suñu carte d'identité dañ ñu ne suñu turu papa suñu yaay yépp mu ngi ci biir puce bi bu ñu amul appareil bu ko liir bu ñu yokk xalaat loolu c'est un problème tu y vas on te dit demal outil extrait pour ñu mën a gis sa turu sa papa sa yaay nga wax ko ñu ne la demal indi mais te yow da ngay ñëw di inventer ay tur je peux comprendre qu'ils veulent vraiment euh, lu leer mhm. mais ut kayit warul tax nga dem ñu naan la ñëwaatal 15 heures. dem gi ndax nga war a liggéey saa c'est quelque chose duñ ko informatiser dem gi ñàkk certificat de jugement d'hérédité ay ay xaar la nga war a mhm. uti papier mu laal divorce ay xaar la nga wutu papier pour mariage ay xaar la xam nga Sénégal dafa dafa dafa sàggan euh, famille la ñuy war non mais ah. ku ne ñu laaj la sa extrait ku ne ñu laaj la sa lii de mariage ku ne en a finir di papier en a finir paperasse bi doo xam tax nu mu toll sénégalais dafa sàggan di nga marié wu ñu jox la dele ne la diir bi boo ci génneek sa papier jàkka. maa la ran di nga rang ba sonn tribunal yow boo demee fekk juge ba yor enni dossier yu tege. nga bëgg ko cee dollil parce que dangaa jël sa temps doo ngay dem lijjanti sa papier. Mhm. mais da fekk affaire yi accumulé wu. donc am na loo xam ne suñu ñun la ñun beneen bi mooy ñaata lieu nga dem muy ay tribunaux peinture gi rafet naa ci kanam nii mais yeneen ruq yi Pape Ousmane doxantul ci biir nga xool. dama toog benn jour bi tribunal bu bu mag bi. grande instance bu Dakar. te tàkkoon jamono yële. ma toog sama sœur dama jékki-jékki ne ko Ibrahima mu ne ma ma ne ko war na fee jaar mu ne ma lu tax Ibrahima dafa yor wuppu yaa di jël mbalit xam lu tax ma xoloon je vois ay appareil climatisation yu kenn jëfandikootul yu baaxul yu nekk ci couloir yi ay bagages yoo xam ne war nañ ko. sànni mbalit mbalit ci couloir yi ah ak yeneen ak yeneen. am ñoo xam ne ci seen i bureau ay magistrat wala ay juge la fa nekk ca mobilier na la ko yàlla umpale mhm. te pourtant dañuy def ay demandes di xaar lu yàgg a yàgg nañ leen teg tamit ci ay conditions nga am ay greffier greffier bu ñu grévé dossiers yi fa lay accumulé muy tiré en longueur c'est des choses yoo xam ni sénégalais lambda bi da koy dund yooyu la ñu bëggatul mu deñ mais bu fekkee dañuy def dossier bi donc pour xool ngoone mii suba bu naree nekk candidat nara indi jafe-jafe dama nekk sax nag <laughs> nam mii man loolu waxuma ko man citoyen bii dem chaque jour tribunal di am jafe-jafe mhm. te ña fa nekk matuñu néew nañu ci li nga xam ni moom lañ leen sas par jour dañ leen di jaajëfal ci jéego yi nga xam ne ñu ngi koy def mhm. mais nañ leen gën a dooleel yaatal tribunaux yi yokk bërëb yi décentraliser may nit yi ñu gën a mën a am possibilité pour uti yenn këyit yi ni ngay utee extrême di ci sonn di ut leneen di ci man sax extrême ci fàttali maa ngi wër sama bos fu mu koy defee ba léegi. Ah. daan teg ban ko tëddee ba léegi. Mm-hmm. maa ngi xaar su ma utee extrême man dal na damay wër rek. mairie principale laa doon euh, jëlee ma xëy suba. comme par magie ñu déplacé samay dossier te kenn waxuma dara. yóbbu ko hôpital principal. non mais de base man fa laa waroon sax hôpital principal ci mairie bi daa waroon di jëlee samay papiers mais ma euh, ma xëy su ba ñu ne ma mairie principal moo ko fay jëlee at xëy su ba ñu ne ma déedéet da ngay jóge mairie principal delluwaat hôpital principal pour di fa jëlee say papiers. ils ont ventilé les gens un peu partout. yow Dantec. waaw am nga problème moo tax ma ne la maa ngi ba léegi. te Dantec xottu la. Mhm. pourquoi je le souligne parce que am na ñoo xam ni soxla nañu. des papiers. oui pour mën a defar ay dossier wala mhm. soxla nañ papier pour mën a euh, def ay ay ay. Euh, démarche mhm. moo xam ci ci jëm bi ci réew wala ainsi de suite ainsi de suite et de petites choses yoo mhm. xamante ne dañ koy dund ni yenn maire yi di defee effort nga dem demander un extrait à l'instant T ñu jox la ko noonee la ci ñeneen war a defee ay jéego noonee tamit la ñu bëgg suñu tribunaux yi ñu gën leen dooleel yokk magistrat yi saal yi ni muy tàngee ngóone dama ko dund ay bàyyi ko xel te xam ni bu ñu yaatalee dina gën a mën a ñoŋ mais bu ñu ko wékk rek ci politique ak toog waxtaan nañu def lii nañu def lii nañu def lii mm-hmm. ça ne change pas les choses mm-hmm. li fi nekk nañ ko fëgg dingi poussière bi mm-hmm. xool li ci baax te jëfee ko mooy nañ ko bale comme ñu def actuellement euh, pour l'histoire de Bah Diakhaté ak imam ñu gaaw àtte leen euh, am na ñoo xamante ne ay longue détention la ñuy dund da ngay tëdd sept ans wala nga tudd voir même des années nga xëy suba comme ça ñu ne la.